Euh, boroom xam-xam yi dañuy wax ni maanaam bu la bu jël benn nitu yàlla génn ko ci nitu yàlla yi moo gën nga jël junniy nit yu dul nitu yàlla dugal ko ci biir nitu yàlla yi moo gën ca yàlla nga jël benn nitam boo xamante nitam la nga génn ko ci nitu yàlla yi li olof bay wax naan ku la romb nga ne du waaja ba moytul waaja romb na la dégg nga te dem xam nañ ni moos hmm? sa rootukaay mooy Serigne Touba radiyallahu anhu waaye bépp kilifa ak diine goo xamante ni rek yàlla jox na la may yaa ngi sukk ci kanamam di ko tarbiyewu ba am ngërëmam loolu nag yàlla na la ci yàlla yàggal ci barke Cheikhul Khadim mi nga xamante ni nga moom mooy sa rootuwaay loolu nag ak moo koy def kenn ku ci nekk am na fooy roote boo buñ la boo fonkul kooka maanaam kooka du la fonk waaye boo fonkee kooka kooka dina la fonk fonkal la sa kilifa googu nga xamante ni dégg nga moom nga foofu ngay roote kon ndiir ñi ngi lay ñi ngi lay ñi ngi lay nuyu di la ziyaara di la dalal ci turu kilifa gii ñu àndal muy Serigne Mambo xam naa bii mooy première yoonam mu ñëw fi mu jóge ci dëkk ba ñu ànd ak euh, Serigne euh, Gorgui Ndiir ak Serigne Moustapha ak Serigne Malick ak Serigne euh, Gora Ndiaye ak njaboot gi yëpp daal comme ni ñu ko daan defee ñëw fii dégg nga ci bis bii dégg bu fekkonte ni dégg nga maanaam bis bi dañu ni bis la woon boo xam ne dañu koy def ba yàgg dégg nga defatuñu ko sax kóllëre gi dina tax dégg nga maanaam ñu sol suñuy dàll ñëw ba fii la ah siyaara mbokk yi dégg nga delluwaat yàlla na yàlla barkeel la yàlla sàmm la ci barke mag ñi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëf jërëjëf ndiir <laughs> jërëjëf kunta kunta kunta man daal euh, li ma xam muy suma ma digg ak amet euh, euh, la ma sëñ mën taa wax altine jële ne ma ñoo dinaa la ba nga ci man rek dara doxatu suñu diggante sëñ Amady noonu laa mel ak moom. su doon na ni mën na maa seey comme suukar. Mhm. damay seey ci amet ni suukar di seey ci ndox ba man amatuma ba kenn jutuma gis nga xam ne ku gis añ met rek seey naa ci moom. Mhm. ndax sëñ daa am lu mu def lool. Mhm. lu du ñu jar a xam la. man Bakel laa neen. waaye nag weer wu mas jot. lu jafe-jafe ba métti. fukki at ak juróom-ñett. weer wu jot ñëw naa mbusu. musuma toog weer te ñëw ma mbusu suñu amet am soxna mu tollu diggante rakkam ne fi ak doomam jooju ñoo maase muy dem ne leen muudu mbàkk ndir laa battaleel sama kër te boo maa nga bàkkeel xalifa war naa mer ah yow sa mag di dem battaleel jàmbur këram ko xamoo fu mu ne ci àdduna te téléphone amul dara amul mu dem ñetti fan guddi jot màggal ja am doom ci guddi gi ma doom laa fanaan siidi woo Ahmed woo euh, sëñ Xalifa woo siidi tàmbali xul mu ne ku muudu ñu mën a biig mësumaa ñëw lu mu guddi guddi mhm. bu ma ñëwee une heure guddi naa yee siidi yee sëñ siidi ne leen ñëw naa sama sëriñ ak suma xarit ñëw naa mu ne ko muudu ñu mën biig Xalifa doog di jooy ne kon Ahmed ak sëñ muudu am na lu ñuy lu ñu daal may woone mu ñuy tudd ma ne ko limal ma ay bokkam ba mu agsee ba ne laal la ko tudd naa ko <laughs> ne ko yan sow na lay laa wa soolaa fi xiyaam yi moo moo tax ma tànn wóor tudd dëkk bi ñu yoo xam ne amee day yooxu dëkk bépp daw ñu ne lu mu doon mu ne mu daal dindi sa ab xol waaw laa la si maa ko tudde yaa ngi ma dégg ñu màggandoo moo ko Seye Gueye ba mu war leen maye woo ma ne ma yow maye Seye Gueye ma ne ko déedéet déet yow maye laal la ma ne ko du ma maye laal la déet yow ay maye Seye Gueye ma ne ko du ma ko maye say gay ci wolof yi nga ko tudde wutal ko cër ndàng amet ba amet julli da koy maye mu ne ma yow nooy def ma ne ko man laalaay sama doom maa koy maye laala am na fab cër mais say gay dafa war a fab cër mu yooyu jooy ma dama jox mënu ma koo fay mm-hmm. li may xalaat mooy loolu rek ndax yàlla dina ma ko fayal li ma yéene mm-hmm. loolu laay xalaat te yéen ñëpp yéen a ngi ci biir mm-hmm. du du du màggal gi du dara daal daa mel ne ndaa nga laa bokk xaw ma fële sanc boona laa dëkk ndax dama fa wàccuwaay bu wér a wér laa fa am ñii seen maam seen kër a ngi fii la dëkkoon bàyyi bekkaay fii la dëkkoon ay ay ñu mu gën a jigéeñal ci dëkk bi léegi lañ génne fii dama leen di wax ne leen nit bu ñu ñëwee fii dama leen a xuloo ñoom ba gune yi jooy ne day xam mbokkam wallaahi ñu daawar a toppatoo bokkam man nag sant naa leen fukk kent yem di ñaan ci barkab seexal bonaama mhm. la muy séddale yàlla yor ko mu jóge ci moom mhm. yàlla bu leen ci kenn ëpp te yàlla mën na ko di sëñ Muntaxa di faral di wax nag bu nu wéetee mhm. bul jombale sa bopp dara yéen bu jombale seen bopp dara suñ borom xamutu askan xamutu aw xeet ki ne ragal yàlla gën koo topp la xam xamut leneen yàlla nun nooy xam yooyu mais yàlla xamut yoolu yoom ci askan nga xeet ak ku la mën jur guya ngi jur xeet ak ku la mën jur baax yi nag baax aku gën nañ leen fexee baax ñun ñëpp te dugal suñu loxo ci njaboot gi fexe ñu mm. baax mm. doon nuwu leen dara lu alxuraan lu ngeen bu ngeen amaan milliards tabax amee ay biddiw it faale ma yooyu man si nag jàmm yàlla laa nam loolu daal man moo lu baax a ahlu kuntundir lu ngeen am lu alxuraan ñàkk ngeen ko comme ne xamal milliard ku bu nit amee milliard borom milliard day ñu sukk fi suuf la ñaari nga tofli ko te boo romb nit dem tofli ko mu jóg dal ci sa kaw yow ma jotee ak man ba ne kon nan leen yàlla gën mu dimbali nan sama nijaay <laughs>